tijani sama waay la jambi ñal jaara busu wala man se bi jaara jurujub maa ngi gaaral ay kàddu yu gàtt jëmale ko ci sumay soppe sumay am di jàmme ak sumay mbokk képp koo xam ne bokkoo ci sumay soppee bokkoo ci sumay am di jàmm bokkoo ci sumay mbokk waxuma ak yow nit bu waxut ak yow nag danga cay mànn li ma bëgg a wax mooy bés bi nga xam ne ci lañuy ñaanal suma waajur bu jigéen bi génn àddina yàlla yàlla jéggal te yërëm muy le 24 novembre novembre 24 ci la plainte Mame Makhtar Gueye ak Jamra yegg ci loxol ñam war a yegg ñi convoqué ma keroog la njëkkat fanaan ci loxo yoon ci àddina bi ma fa duggee su may mbokk ñoo njëkk fekk si biñ ànd man ci suba gi Moustapha Dramé fekk ma fa bim ñëwee wan ma cofeel ak mbëggeel ak considération boo xam ne awma ko ci ñu bëri doomu ma lu mën a xew il faut reconnaissant ndax dafa am sol bi loolu amee mu ne ma kii min na tribunal bi jox ma dara ma jox ko ma ne ko ñaata mu ne trois cent mille ma bàttale sumay rakk ak suma liggéeykat dañu di trois cent mille jox Moustapha Dramé mu ëlbati ko di laaj suma rakk bu jigéen ndax man am naa xaalis ndax nangam ndax nangam kooku wax ko lim xam ci guddi gi mu fekk ma police centrale ni ma naa ko jox un million franc CFA ndaxte mandat dépôt bi retour de parquet yi ma doon am mu ne trois cent mille ya ma ko jox moo tax ma am retour de parquet mais sinon rëbës laa doon ma yëkkati un million dig la ñu jox ko ko bër set laa leen ne kii dóor na suma xaalis su ma mbokk yëpp na Moustapha du def loolu itamit ca nangam ma ne leen baax na ba ma jàll rëbës waxuma ko dara ma bàyyi ko ci biir rek su ma ko woowee dañuy maslaa ak a nekk ci jàmm rek bés suma bugaay jur bu góor nekk ci situation yu mu soxlaa xaalis feebar ma yónni sumay rakk ya ko joxoon xaalis jotuñ ko man la woo kon Moustapha ñaata moo des xaalis mu ne ma jox naa ci juge ak procureur quatre cent mille a des ma ne ko quatre cent mille joxal ma ko sumay rek suma bàyyi dafa feebar nekkul dama bëgg a wax ne maa suma baab wala déedéet loolu du wax mais doom june sa waajur bu nekkee ci bon moment sa war nga koo jàppalante sa rawatina bu nekkee ci moment bu dul bon moment li ko waral mooy waajur dañoo amut fayam Moustapha na ma baax na maa ngi koy jox say rek ma delluwaat suma néeg tëdd ci biir kaso rakk yi di ko kenn jotu ko ma woowaat ko mu ne ma dinaa ko dinaa ko dina la ko jox fekk balaa loolu sa noonu naa ko li ci des bi ma loolu si benn jigéen expliqué ko situation bi mu daggee paas Europe ñëw defal ma suma soxla na ma Cheikh Ahmed ni nga mel ci man doo nekk kaso sa bàyyi feebar ma di la laaj xaalis nga nga may nga may leb ma lay lebal duma ko def noonu Moustapha Dramé yàllaay kese tëdd ci suma xaalis ma génn kaso wax ko mu ne maa ngi ñëw sa kër indi la xaalis maa ngi génn la 7 février 8 9 10 11 12 13 14 ma woo ko te mu ngi dëkk Mixta maa ngi dëkk Liberté Extension une semaine laa ko may mais yegg siwul waxaat ko mu ne ma suba ma may ko ñetti fan ñetti fan yi jot mu ne ma waat suba ma mayaat ko ñetti fan ma dem këram Moustapha yëkkati benn cinquante mille ne moom la may jox ma ne ko déedéet ma ne ko ma nekk léegi cent mille laa ko may ma ne ko Moustapha li ma naqari mooy nan ngay amee nit ku la yàlla booleel muy sa am di jàmm caabi féete ko ginnaaw yëkkatiwuloo sa xaalis dem dimbale ko ci biir kaso nga lekk ci moom un million trois sax nga ne juge nga ko jox procureur nga ko jox juge bi maa toog mu ne ma Cheikh Ahmed bi ñu la jàppee amul ku ñaanul njekk nekk réew mi yëpp den laa bëgg li la war mooy nangam nangam man mu ne ma kenn nag yëkkatiwul xaalis joxam ma toogaat ma ne ko kenn joxu xaalis mu ne ma ma wax ak juge ba war a wax ak moom juge ba liggéeyam la def pratiquement yem ci procureur de la république ma seeti ko ñu waxtaan mu wax ma la may wax ma ne ko Moustapha li ma jaaxal naqari ma moom du xaalis ndax nit bu dee sa am di jàmmale war naa mun a jël sa 3 millions war nga ko mën a may 4 milliards mais nit ku ne daf la sopp nit ku ne da ngeen am jàmm ngeen di salum salum bokk tarixa Cheikhu Tidiane yi caabi féete la ginnaaw amul yërmande amul considération ñëw mën laa dóor foofu xaalis bi sa papa feebar yaa ngi kaso fajut ko ngir bàyyam la nga laajaat ko mu bañ nga génn kaso laaj ko xaalis mu ne la maa ngi nga may ko une semaine mayet ko trois jours mu ñëw di la jox ma ne ko man soxlawu ma lii mais acte baa ma métti mu ne ma ñeneen a ma dóor ma delluwaat ci ñi amee loi ñu ne ma su ñëwee ba fii ñooñu dañ leen di foog naa sanctionné la tudd xaw ma de dañuy am problème ma ne ko Moustapha ñi lekk suma xaalis mënu ma leen mais man ak yow rek dix millions na suñu diggante ku ñuy wax bu Cheikh Amar Cheikh Gadia mu baax mi ngeen xam dugg ci wax ci na ko xaalisu Cheikh Ahmed bu la ko may deru xaj la mënta julli mënta wir la jox ko ana du client bu ñuy dóor moom Moustapha wax la muy wax ne neen ko may ba lundi ma ne ko jëlaatal ba mercredi mercredi woowut Cheikh Gadia nga woowut ma jeudi la ñu tey suba ngoon tey suba ngoon jëf ji mu def nag wutee nag li muy jàngale ak li muy wone comme musiciens yi ñoo mën a dem safara lu nekk dafa xaraam dafa dagal waa kay fa nag mbokk moo am ci yàlla caabi féete ko ginnaaw nga ñëw di ko wan mbëggeel lekk xaalisam tuumaal juge tuumaal procureur de la république jël un million trois cent lekk ko toog ci tane sa liggéey doxul yow fan nga jëm porte plainte naa ko nag au niveau du procureur porte plainte naa ko cybercriminalité seede yëpp bind neen su coow jógee nii la demee te ku ku nekk ci kaso 24 novembre 25 26 mu jox la xaalis bi 27 mu joxaat la xaalis non non non 24 25 25 laa ko jox xaalis ak 26 ba ma génn kaso la set di muñ di muñ ba fii. sénégalais dafa doon na fekk dangay wax mu ne mënoon na ko sutura da wax mu ne mënoon na nopp da wax mu ne jaru ko waaye ndax xam ngeen santiment bu ma sentir ci ku doon woote xarit ak man ma nekk kaso mu jël suma xaalis su ma bàyyi feebar ma war koo faj mu di ma tardeel ma génn muñal ko la set ba tey ngay jot vidéo bii nii la 5 mars patience boobu muñ googu ndax yow mën nga ko kon balaa ngay juge nit ki solal dàllam jaar yoon ba jaar dëj bu ko dëj jam ba xam di nga siiku wala da ngay yuuxu su boobaa ngay xam kan mooy jàmbaar kon daal Moustapha Dramé lii la jëflanteeg man du ma fi nekk nag naan dafa baax wala dafa bon déedéet aw ma dura xas ko ndax gënuma ko mais lim jëflanteeg man nag mën naa cee wax du ma ci yokk du ma ci wàññ a jaara busuk wala mañ se bi jaara